waaw waaw Dakarnet rek chers téléspectateurs vous pouvez varier les genres de programme que vous regardez waaw pas DJ divertissez en piochant parmi les séries sénégalaises reportages débats politiques culture théâtre sénégalais ba ci film africain yi sport découverte religion ba ci variété ma ne la mbokk téléspectateurs yi dama ne daal su ngeen bëggee digg-digg daal Dakarnet rek ci information sodul am gaaw leen dugg abonné Farouk Mbaye eh, dangaa fàtte temps bi yàlla taal sans matu moo ko ëpp tam bu bu kaa fay man sama ndey damaa de man sama ndey du mongo du dëmm sama ndey du vampire. Eh, xam nga baax li nga def ñëw sama kër sànni ay nan wante Farouk Mbaye man Ouzin Keita mënuloo ma dara bakki Seydina Ahmed lu waaye mënul xeeba sonko duma ko mënul bakki Seydina Ahmed ma yaal si moom moo ma taal si aras bakki Seydina Ahmed àdduna bëgg ma fosuma dara li ma def lu nekk. dafa nekk netellement si man mbàkk Seydina Ahmed mbàkk Seydina Ahmed yàlla ma taal. Pawlish Mbaye ba tey ba tey duguma damaa ne li nga def laa wax akamaa la gis sama balcon siin la ngay kone sa oto yéeg sama appartement maa gis nànk ay ma dara Pawlish yàlla ma suñu bopp yàlla suturaal làkkat pire waaw waaw sëkkal laa sëkkal Waaw waaw, Dakarnet vous pouvez varier les gens de programme que vous regardez. Waaw, pas DJ, divertissez en piochant parmi les séries sénégalaises, reportages, débats politiques, culture, théâtre sénégalais, ba ci film africain yi, sport, découverte religion, ba ci variété. Ma ne la mbokk téléspectateurs yi, dama ne daal su ngeen bëggee digg digg daal Dakarnet rek ci information, sodul am tation, gaaw leen dugg abonné.